suñu destin nag mu ngi suñu loxo ñun ñoo mën a def suñu kentulaay kàttan ngir gën a rataxal suñu diggante. solidairement. ci jamono ji la réewum Sénégal ak bu bi Gàmbi ubbiwaatee beneen xët ci seen taarix mu di ab xët bu bees bi nga xam ne dañ cee toftal ak lëkkaloo. lëkkaloo bu ratax seen diggante gannaaw bi nga xam ne ni fal ñu aadama Barrow ci bopp réewum bi loolee ñu firndeel ko ak conseil ministériel bi nga xam ne ni dañ koy amal diggante Sénégal ak Gambie mu di conseil bi nga xam ne ni day gën a firndeel bëgg-bëggu ñaari réew yi ngir ñu amal ay lëkkaloo yu mucc ayib. nos deux suñu ñaari réew yi mën nañoo gën a rataxal seen diggante ci wàllum napp gi ci wàllum sàmm gi ci wàllum mbay mi ci wàllum miin ak énergie. mu di ay pàcc yu bëri nga xam ne ne bëgg nañ faa jaaree ngir mën a gën a dëgëral seen i lëkkaloo ndax ko mu ñaari askan yi a gën a mën a naat. ci noonu la ñu waxtaanee it ngir ñu oyofal la lépp li nga xam ne ni lourdeur administrative la bala nga xam ne ni moom la ñuy séntu seen diggante mu gën a yomb li jëm ci wàllu napp gi ñu xaatim ci ay fànn yu bëre ba ku nekk ci ñaari réew yi say nappkat di mën a dem ba ci beneen réew mi te du ñu am benn gàllankoor ci wàllum courant ñu nemmeeku ni Senelec mooy jox courant Newek mi nga xam ne ni moom moo fa yor lépp lu jëm ci wàllum électrification ci biir réewu bi loole ñu jaarale ko ci ay point de connexion bu Kër Ayib ak bu Karang bu wees wee lu jëm ci wàllum courant gi ñaari réew yi gën a dëgëral seen diggante ngir ñu mën a tàggat ñëpp ñi nga xam ne ni ñoom ñooy liggéey ci wàllum énergie ngir seen i bëgg-bëgg mën a antu ñaari réew yooyu tëral ay projet yi nga xam ne ni dina tax ba dem ak dikk bi gën a yomb seen diggante li ci mel ni pont bu fa rafe Farafeñi bi nga xam ne ni day wone ni ñaari réew yi géej rekk a dox seen diggante waaye benn la